ami internet yi nga xamante ne baaxoon nañ dañu topp fii ci suñu ay plateforme nuyu nañ leen ah, daal di leen ziar jox leen seen wàccuwaay ah, tey nag ñu ngi fii ci jëppal actrice bu mag boobu di Mariama ñu gën koo xam ci série bu mag boobu di Mariama tey nag moom lañ doon may borom kër ñu toog ak way juróom bu jigéen dañ koy daal di bàyyi mu yoon teeg internet yi ñu fas yéene dugg ci waxtaan week témoignage bi yaay booy ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax mhm. maa ngi di fay di leen sargal bu baax a baax a baax mhm. waaw di leen ñaanal yaay booy tey ñuy doon maye sa doom bu jigéen mu di Mariama tey di bësu xew bi tey lañ nga ñu mën a wax ci sa doom. xanaa di ko ñaanal rek sëy bi barkeel xam nga ndax Mariama xale bu baax la bu yem ci ay loxo maa ngi koy ñaanal sëyam bi yàlla na barkeel yàlla bu ci gis dara lu ko naqari. Mhm. waaw loolu laa koy ñaanal bu baax a baax baax ndax Mariama xale bu baax la bu ma déggal bu yem ci sama ay loxo. Mhm. maa ngi koy ñaanal bu baax ci daraja yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam. yàlla bu mu gis dara lu ko naqari ci sëyam bi. Mm-hmm. yaa booy siiw yombul. tey siiw mm-hmm. jigéen siiw ñu bëri ràññee ko ci série ak. Mm-hmm. ak yow. xanaa normal rek yëgul succès de yëgul succès de wax dëgg yàlla yëgul succès na meloon nag man rek la mel ak man ba tey wala lu ko lu ko raw sax lay dund ak man di ko dund ak sama njaboot ak ay magam ak ay raqam yëpp wax dëgg yàlla yëgul succès benn yoon. yan mhm. kàddu dénkaane xanaa di ko ñaanal yàlla rek mu toog sëy te muñ te xam ne sëy neexul déggal jëkkëram loolu laa koy ñaanal bu baax a baax te yàlla musal leen ci cat ak làmmiñ mhm. ak wax mhm. la Mariama am ci mu ngi koy def. mi ngi day togg day yàq day def yëfu jigéen lépp loo xam ne jigéen da koy def Mariama mën na ko da koy def waaw. day togg day yàq day def yëfu jigéen xam nga mhm. waaw yëgul succès de wax dëgg yàlla sëy bi bëri coow ñu gis groupe yu bari wax ci bëri dafa am ku góor kum doon bëgganteel koo xamante ne da ko doon topp ci xaalis ba sax tudd nañ la ci ak yu bëree bëree bari lan nga ñu mën a wax ci coow yooyu moom duma ci wax ndaxte fii moom ku siiw rek ñu coow la duma ci wax du ma ci wax tey na sëkk ak barke ndax lépp loo xam ne lii wax nañ ko ci rek amul kon man duma ma si wax dara damay teg lépp ci loxo yàlla te xam ne moom ku boot bukki xaj mbaw la loolu kese la mais wax ji moom duma ci wax xanaa di dénk sama doom rek mu góorgóorlu déggal jëkkëram déggal ay mbokk jëkkëram comme ni mu ko defee woon ak man rek su ko defee bu soobee yàlla dina fa toog di dafa sëy waaw gis naa fi chambre à coucher ñu ne woon dañ ko saisir ba yóbbu ko ci huissier. yow bàyyil ma ñooñu ñun bañ dalee tëdd ki chambre à coucher xamuñu kooku. iPhone bi dañ ko nangu. xoolal Mariama mooy iPhone Mariama mooy iPhone waaw kay. 36 millions yi ñu ciy tudd nag. <laughs> sax kii lekk nañ ko rees na. lekk nañ ko rees na bu dee moom 36 millions la fi maye lekk nañ ko rees na te man sax lii Mariama dañu ma woon bu ma ci wax du ma ci wax yaa ngi dégg billaay wallaay taalaay du si wax. lu waay wax yàq sa boroom la loolu kese la mais man lii duma si wax ndax man talu bokk sama doom ji laa tal talu ma leen mu koy ñaanal yàlla mu sëy ki jàmm ak salaam loolu kese la lii ma def sax neexu ko te bu ko fi fekkoon du am mais yéen laa xamul nu ma leen di def du dëgg loolu la. lan ngay nga xam ne. ñoo hmm. ñoo ñoo ngi yàq ñoo ngi xaar ba euh, ñu maye seen i doom ñu commencé di génne wax loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi wax ju bon moom dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo du dëgg. waaye Mariama ku waxal yàlla xam ne kenn mësu ko dégg ci leen duñu xaar nag ba mu sëy ñu bëgg a yàq deram mënut a sotti loolu kese la. Mariama di doom ju yaru yi lool. mësu mhm, mhm. ko gis muy yaata yu wala muy taxawaal. Mhm. ci yenn événement boîte de nuit wala dara. xamee nañ bu rafet. mu wax ju ñaaw ñëw dal seen kaw. man de dundeewu ma ko nen bu doon lu am la mu metti ma waaye loo xam ne dara amu ci man du ma ko dundee nen kon su ma ko dundee woon nen kon du ma xewal sama doom du dëgg. dundeewu ma ko neen lu dul rek sant yàlla te xam ne ku baax rek la ñuy waxal ku bon kenn du la waxal mm-hmm. lool kese la waaw. voilà ba tey rek ñu ngi fii ci jëppal ci mariage u Aminta Mbaye ñu gën koo xam ci euh, Mariama di actrice bu mag boobu ñu toog ak sëram euh, soxna si maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoon teeg internet yi. maa ngi leen di fay. di leen nuyu mm-hmm. waaw. Euh, tey ñuy doon ñuy maye sa rakk mm-hmm. tey yan kàddu seede nga ñu mën a wax ci ki nga xamante ne moo di sa rakk. waaw kontaan parce que vraiment Amina suñu rakk bu baax la déggal na ma demul dikkul bokkul ci dara donc tey suñ ko yoree ba di ko maye suñu fierté la te kontaan nañ te wóolu nañ ko xam nañ fu mu jëm. Mm-hmm. <laughs> yan kàddu yu dénkaani nga koy wax parce que ñu bari dañ naan actrice yi ak ñenn ñu siiw ñu duñu toog ci sëy tey lan ngay wax sa rakk yabee ko ko. waaw loolu loo gis rek ci yar bi la Amina bu demee dina sëy parce que loolu la fi fekk te loolu lañuy ñu yaree siiw ak euh, sëy jafe wuutewul quoi parce que nit ki ni nga mel foo dem loolu nga fay yóbbu. Mhm. yan kàddu yu témoignage ñu mën a wax ci jëmm jooju baax na tabe na lu mu yor ñëpp a ko bokk amul benn problème demul dikkul. su joué jee série bu ñëwee mi si wetu yaayam demul boîte de nuit demul hôtel taxawaal jiwul kenn gisu ko ci mbedd yi lu ko waaye waxa rek da ko sos te nag baatu ginnaaw fii Sénégal la. <laughs> ñu bëri dañ ne woon xew mi du am parce que dañ leen yóbbu huissier de justice ndax dafa am coow lu am ba ñu nangu chambre à couche ak iPhone ak 36 millions yi lan ngay wax ci loolu. yéen ñëw ngeen fi gis ngeen fii dara manqué fi ñun namuñu chambre à couche wax ji moom dégg nañ ko mais xam nga lu amul moom. jarul topp. kenn ah xoolal ndax gis nga fii lu fi jóge kenn yóbbu leen ci yoon. ah ko. gisaguñu dara. siiw moo bindoo noonu siiw du jaamu boroom mais ñun namuñu chambre à coucher. tedd nañ dem tey soog a ñëw. soxlawuñu dara kenn. ku jigéen nag ku ko doxaan boo ko mayee mu jël. lekk ba digéré. kese nag. waaw. kon daal loolu da koy dëgg. bu fekkee dafa jàpp ne dañu ko may. lekk nañ ko digéré nañ ko point c'est tout. coowal xaas bi am na ko loolu duma ci dugg coowal xaas bi du ci dugg mais comme maa ngi dégg coow li ci réseaux sociaux yi ñun frégew ñu parce que ñun ñoo ngi xew suñu xew ba mu baax te dara du ko yàq. bu fekkee ne dafa jàpp ne daf ñu may xaalis wala dañ ko liggéey lekk xaalisam bon na jàpp ne rees na digéré nañ ko. mais wax ji rëy na de lu tax mu bàyyi sax ba takk gi am mu soog a génn di réclamer. ñàkk ñàkk ñànki baadoo la moo koy def ñàkk ñànki baadoo moo koy def parce que jigéen loo ko defar rek jomb ko te yow booy génn ak nit loo ko may lu nekk yow la neex nga may ko ko kenn foo sew fi kenn foog naa man sama yaay ji ñun ñii mu jur sax du dem uti ji saafara di ñu jox ñu sangu kantaan bay dem di liggéey doomu jàmbur wax bi ñaaw na. ñaaw na mais nag gis nga nit boo bonee lu bon rek ngay def lu bon rek ngay xam xam nañ ko. kan la ah non du ma wax turam. non dañuy ñamal kan la parce que wax jeng ci group yeeg réseaux sociaux yi ñëpp moom la ñuy moom la ñuy paasante semaine bi. wax turam mais moom na jéem ñibbi si Sénégal rek moo gën. Hmm. waaw ay tooxi doonam bëri na Sénégal na ñibbi si. léegi léegi yéen yéen wax ju ñaaw jooju noonu ak ko duñ ko def dara bàyyal nañ ko ak sunu borom borom bët bu rëy bi lañ ko bàyyal te xam ne ñun li muy wax dara amu ci dara taxu ci. Ah. teg nañ lépp ci loxo yàlla. mais loolu deru tilimal. munu ko tilimal Mariama deram seet na démb tey soog a ñëw loolu munu ko tilimal. Ah. toog na fi ñu ko yaree réglé na li ñu koy sant yëpp mu ngi koy def kenn gisu ko ci benn détail donc loolu munu tilimal deram. mais moom dane woon dafa am ay contrat. taaw du échec. waaw taaw bu échecgee ay rakam échec taaw du échec. ay rakam échec. Sëriñ Tuubaa Mbakke. taawoo taaw bu échecgee ay rakam échec taaw du échec. merci donc very good very good.